maaleykum waa àdduna asalaamaaleykum waa Sénégal tey nag sama tata bi laa bëgg a waxal baax si man gën ci man nga xamante ni daf maa bëgg yéemaloo ma kenn bëgg ma comme niñ koy waxee rek boo xamoon li nga koy def nam la dafa tax man tata tey xaw ma sax mënuma sax wax muy tata François Hélène bëgguma sax di jaar sa tur ndax li nga def ci man la tata maa ngi lay ñaanal ku defal nag wér gu yaram gis naa chaîne bi moom laa sol ni ak yére bi gis naa lépp greffage lépp saak yépp yegg si nañ tata tata yal na la fi yàlla bàyyi yàlla musal la ci cat ak làmmiñ ci barke Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ni nga ma taxawoon nag ñëpp gis nañ ko taxawal sama famille sama maam sama papa ñoom ñëpp nga taxawuñu taxawuma jooyuma dara